rahmaani rahiim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk jii di asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi dellu si di leen andil ñaareelu kaset tey mu tudd waseetu kenn di benn xasida boo xam ne imaam maam borom Tuubaa radiyallaahu anhu moo ko def yuusi muridatahu zawjata ammihi Penda Diop xafara allahu lana wa laha wa maha anna wa anha kulla zanbin wa xuub Penda Diop nag benn jigéen la boo xam ne ku ñuy wax sëriñ Ibrahima Mbacke moo ko doon denc sëriñ Ibrahima Mbacke moomu moog maam borom Tuubaa ñoo bokk benn bàyyi maam Mor Anta Sali soxna Penda Diop moomu nekkoon koo xam ne dafa jébbalu si woon ci maam borom Tuubaa mu koy dénk dénkaan yoo xam ne jullit bu ne di jigéen war na ci bàyyi xel jullit bu ne di góor war na ci bàyyi xel jàngal ko ak njabootam sëriñ Ibrahima Mbacke moom it mooy ki nga xam ne moo doonoon woy juru sëriñ Abib Mbacke mi daan jiite jumaay Tuubaa xam-xam yooyu ñu ngi ko jële ci sëriñ Abo Mbacke di imam ci ñaari tali wala ci benn tali tabaarakallaahu kon ni ma ko waxee léegi ndénkaan yooyu war na nekk loo xam ne ku di njaboot war nga ko xam moo xam jigéen nga moo xam góor moo xam mag nga moo xam ndaw jàng ko jàngal ko say njaboot xamal leen ko ndax dund gi ñu koy dund leen di may ngërëmu suñu borom ci àdduna may leen ngërëmu suñu borom ca àllaaxira ndax mag mooy wax di wax ak koo xam ne kii taalibeem la te it koo xam ne kii taalibe nga it war ngaa bàyyi xel ci ndénkaan yi fas yéene mel ni soxna sii nga xam ne moom lañ dénkoon ndénkaan yi mat fukki ndénkaan ak ñaar yoo xam ne benn bu ci nekk bu ko waxul defal lii rek nee na ko moytul lii te mag mu dem ba dellu si wala mag mu xam ba xàmmee wala mag mu ragal yàlla tabaaraka wa taala ba mel ni sëriñ bi jàpp nit di ko wax di ko dénk ndénkaan yooyu kenn ku ne war na ci bàyyi xelam kenn ku ne war na ko déglu kenn ku ne war na di ko jéem a dund jéem koo fexe ba ak njabootam dund ko tabarkalla xasida bi nekk na ay bayit yoo xam ne yu xaw a néew la waaye li mu làmb ci ay njariñ bari na lool ñu fas ko yéene def màggale ko dëkk yi wala bokk mbindu mag mi ñëpp bu teyee ñu jël mag mi bu beneen yoon ñu jël mag mi ni ñu jëlee mag mi tey incha allah beneen yoon mën nañu jël meneen mag fas ko yéene def ci li nga xam ne moo di kaset wala fal ko ba ñëpp mën koo jëriñoo incha allah subhanahu wa taala yàlla ñu ci yàlla boole defal tawfiq def ne ko aleyki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fa yaghfira lak maa ngi lay dénk muñ maa ngi lay dénk muñ ak ragal sa borom ci lu secret ak loo xam ne lii lu feeñ la su ko defee mu jéggal la say bakkaar xam ngeen ne muñ war na ci ku nekk waaye rawatina jigéen joo xam ne yaa ngi ci néegu sëy muñ war na ku nekk waaye rawatina ki nga xam ne jigéen la jot mi ngi ci néegu sëy néegu sëy ki ci nekk su fekkee muñul lu mu xëy xëyaale nettali ko ab sëyam lu yàgg te itam kay jur wàll yu mooy ka ñuy def lu métti mu di ko muñ wolof nee na kuy wanaasu am mer sa doom di ko nam su géexee géex mbaax waaye su fekkee ne baat bu ñu la wax nga tontu baat bu ñu la wax nga jël say bagaas wolof nee na sëyin woowu du loo xam ne nit ki mën naa jur lool dañuy wax ne kii jàmbaar la wala kii tekki na kon nag mu njëkk ko dénk muñ tabaarakallaahu di loo xam ne yàlla tabaaraka taala nee na muñ kat yi la àndal waaye rawatina nag fii ñu toll te mooy di wax ak koo xam ne kii dafa nekk ci néeg boo xam ne dafay jàmm boroomam tabaaraka taala mu ne ko nag soo ci jógee nga teg ca ragal sa borom wa taqwa rabbiki ragal sa borom ragal yàlla nag mooy di def ay ndigalam di bàyyi ay tereem ragal yàlla du loo xam ne ak col lay feeñ du loo xam ne ci ay wax lay feeñ waaye ragal yàlla mi ngi feeñ ci ay jëf mooy nit ki su fekkee jëflante na ak yow nga xam ne kii li muy jëf nit ki seet borom tabaraka wa taala bu yàlla ne def leen nga gis muy def bu yàlla ne bàyyi leen nga gis muy bàyyi loolu mooy ak ragal yàlla wolof da koo waxee noonu di tudde ko ragal yàlla waaye ci doon arab dañuy wax ne imtisaalul awaamiri wa jitnaabu nawaahi te mooy def ndigal yi ak bàyyi tere yi mu ne ko kon nag yow sama taal bii Penda Diop maa ngi lay dénk nga muñ yàlla nga muñ ngir yàlla tabaaraka wa taala fi sirri wal jahri ci loo xam ne lu feeñ la ñaar yi rek nga daal di jàpp mooy muñ ak ragal yàlla muñ ak ragal yàlla ci lu feeñ ak lu nëbbu muñ ci lu feeñ nag ak muñ ci lu nëbbu moo di li ñu lay def doo ko jàmbat ba noppi door koo muñ waaye buñ ne la tëll da nga koy muñ loola moo di ak muñ kon loolu mooy ñaari ndénkaan yi nga xam ne moom la ko njëkk a dénk te moo di muñ ak ragal yàlla sëriñ bi ne ko duumi ala tawbati bi ijtihaadi saxal ci ak tuub duumi saxal ala tawbati ci tuub lan moo di tuub mooy dellu ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bi nga xamee ne bàyyi nga li nga xam ne mooy topp cheytaane ndax jigéen kat léeg-léeg su tollee ci wàllu dugg ci néegu néegu borom këram wala su tollee ci wàllu ñu koy denc léeg-léeg mu def ay rëcc-rëcc wala ay jàdd-jàdd yoo xam ne du lu neex suñu borom tabaraka wa taala rawatina jamono yi nga xam ne ci la ñu toll jigéen joo gis la muy sol baaxut jigéen joo gis la muy woddoo baaxut jigéen joo gis jëflanteem wala boog ñu bari ci ñoomu ñoom seen jëflante yu baaxut moo tax kon def tawba te mooy tuub baax na ci ñoom lool kenn ku ci nekk dellu ginnaaw bàyyi tuub waaye tuub nag kenn mënu ko def lu dul bijtihaad te mooy farlu bijtihaad te mooy fexe rëcc ci buumu cheytaane bijtihaad te mooy góorgóorlu ndax ku dul këri këri ku nekk fa nga nekk rek ngay nekk wolof nee na ndox bu nekkee ca fa mu nekk dana commencé nax waaye ndox muy dem di di wal doo ko fekk mukk mu nax kon nag tuub wolof du ko tekki ñaare day wax ne taaba tuub na rek waaye tuub na ci wolof mooy dellu na mooy bàyyi na yoon wa mu nekkoon tey suñu borom gërëmul woon yoon wewe mu dellutu ci weneen yoon woo xam ne moom la suñu borom gërëm loolu mooy tuub kon nag tuub dafa war mag war ndaw war góor war jigéen ndax dee mi nga xam ne moo fi jële nit ñi day bette kenn xamul kañ ngay dee te it fi mu nekk nii bi ñu nekkee ci atum 1999 man mii mën naa waat ne amul kenn ci ñun kuy fekke waat ñetti neuf amul kenn ci ñun ku fekke ñetti neuf yi di fekke waat yenn ñetti neuf l'an 2999 kenn ci ñun du ko fekke ku ko waat ku nekk da nga wàcc ginnaaw nag loolu noonu la demee ku nekk war ngaa mën a tuub fay say bor waajal sa bopp te xam ne tabaarakallahu wa taala mi nga xam ne moo ñu bind wax na ne tuub kenn ku nekk dafa war ci yow moo tax mu ne kon nag tuubi ala tawbati bi duumi ala tawbati bi ijtihaadi mu ne ko nag wala tamili li siwa rashadi bul jëng mukk di jëm ci lenn lu dul ak njub sa tànk bul sol dàll mukk di dem ci loo xam ne du ak njub lu dul ak njub buñ la fa fekk ak njub daal bu soo sele saw dàll na la njub tax a jóg waaye lépp loo xam ne siwa rashadi du ak njub mu ne ko ah mu ne ko bul sol sa dàll wi mukk waaxu wut wuti loolee bul sol saw dàll di dem ñu ne foo jëm nga ne sabar ga bu ko def mukk bul sol saw dàll ñu ne foo jëm nga ne ko la dara ba bul sol saw dàll ñu ne foo jëm nga ne dama si daan di kermees bul sol saw dàll mukk ñu ne la foo jëm nga wax yii yan ak yu demee ni ki ñoom jigéen bu sol aw dàllam fa mu war a jëm warta doon ludul ak njub waaye ku sol aw dàll di jëm ci ludul njub da nga ko rëcc bu yemal xiyaamatee mu ne kon wala tamii lii li siwa rashadi bul jàng mukk di jëm ci lu dul ak njub mu ne ko duumi alal xumuuli wa tasatturi wal taxfidi sawtaki dëhran tushkari mu ne ko na nga sax duumi na nga sax waxoon na ko léegi ci taw ba mu ne ko nag léegi duumi na nga sax ñaar lu sax bi ci looy sax alal xumuuli ci mooy ak sedd xumuul ci jigéen mooy mi ngi mel ni ni aw xal di def gëmm ba boo ko gisee doo yëg ne aw xal la jigéen war na su rombee ci barab romb fa ba dem du fa yee fitna loolu mooy xumul safaanu xumul nag mooy jigéen joo xam ne foo jaar ci barab nit ña la nga yor xeeñ leen la ngay takk ñu dégg ko dégg sa kàddu ku la jox loxo nga jox ko ku la tàpp nga tàpp ko ku la lëng nga lëng ko loolu mooy safaanu xumul xumul kon mooy jigéen ji fi muy jaar ci mbedd mi wala fu demee ni ki yooyu war na faa mën a jaar ba jàll te duñ yëg ci moom lenn loo xam day yee fitna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn jigéen defaru na ci kër gi bay génn yay xeeñ di xeeñ yay yëngatu di yëngatu alayhi salaatu wasalaam ne ko dellul ca kër ga nga sangu ji ndaxte yow mii kasa wa kasa tafsir kat yi nag ba ñuy firi kasa wa kasa ñu firee ko ne yaani azaniya ñu ne ko maanaam kon mooy njaaloo nga waaye daal xumul kon ci jigéen mooy jigéen ji su dee génn wala sax mu fexe ba ñàkk a génn na nekk ko saxoo koo xam ne xumul la di wax ndànk di dox ndànk teey di jëflante jëflante gu yiw te it du génn këram ci génn ga alxuraan tere wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyatil ula mu ne ko duumi saxal yow penda alal xumuli ci sedd wa tasatturi ak suturaal sow yaram tasattur mooy sa yaram wi li tàmbulee ci cat kawar yi ba ci cat tànk yi bu fi dara feeñ lu dul la yàlla ne mën naa feeñ moo di xar kanam bi ak tenq yi ca firim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa tasattur nag incha allah dina ñëw ci bayit woo xam ne ma nga ñëw ca euh, téere ba ñuy tuddee euh, saadatul tulaab te maam borom tubaar de la anhu doon ko def di ci jàngale li ñuy tuddee grammaire incha allah tasattur boobii dana ca dellusiwaat ci bayit woowee nga xam ne da ko faa ber radiallahu anhu mu ne ko wal tax fidi sawtaki dëhran tushkari boo defee xumul def tasattur mooy denc sa yaram bi sàng ko lépp tabarkal lu mu tàng-tàng fu ñu la gis na nga sàng sa yaram jigéen dafa war fu ñu ko gis mu sàng aw yaram ndax aw yaramam mooy teraangaam ci adduna aw yaramam mooy teraangaam ci àllaaxira su ko sàgganee bàyyi ko ci biti ngelaw li di ko jaar fu nekk góor ñi di ko gis fu nekk loola du ab diine ci moom loola du lu baax ci moom jigéen day denc aw yaramam moo tax mu ne ko wat tasatturi tasattur nag dina tekki ay yëf yu bari bokk na ci dina butu ci biir kër gi sa kemtalaay kattan bokk na ca dina butu ci biir kër gi sa kemtalaay kattan bokk na ca soo dee génn nga nëbbu sa yaram wi yëpp sol lu yaatu sol lu fat sol lu jot muur sa bopp bàyyi mèche yooyu yëpp bokk na ci tasattur duumi alal xumuuli wat tasatturi tasattur kon ci jigéen te mooy suturlu rek loolu la ko alaf di tuddee suturlu suturlu tasatturit bokk na ci teel a am jëkkër teel a am jëkkër bokk na ci li ñu tuddee tasattur mooy teel a am jëkkër dugg ci li nga xam ne moo di ab sëy ndax jigéen ñaari sutur la am mooy alxabru wa zawju bàmmeel ak jëkkër ñaar yooyu kon bu ci nekk it bokk na ci tasattur bàmmeel nag yéex caa dem ñu bari moom lañ bëgg waaye jigéen suturaam mooy benn bi beneen sutura bi mooy mu am ku ko denc wal taxfidi sawtaki dëhran tushkari nga daal di suufeel bu baax sa kaddu nee na dëxëran li feeg yaa ngi dund su fekkee ne def nga xumóol sax ca def ta sa tur sax ca suufeel sa kaddu sa ngirum dund mu ne ah mu ne ko tuskari dees na la sant tuskari sa jëkkër dana la sant tuskari yàlla dana la sant tuskari xeet bi nga xam ne ci nga bokk dina la sant ndax doomi Suayb ya la taxoon Muusaa fekk leen ñuy root mu yërëm leen rootal leen dara war lu ko lu dul tasattur rek ba nga xam ne ak xafdu sawti suufeel seen kaddu ñaar yooyee moo taxoon lañ amoon ca yonent yàlla Muusa ñu amoon ko ci moom lu ko xañ jigéen tey mooy ñett yii moo manque ci jigéen tey moo tax góor ñi yërëmatuñ leen xumool amatut tasattur amatut xafdu sawti amatut te it alxuraan doon na wax ne laa taxda wala taxdaana bil xawle fa yatma alladi fi qalbihi marad bu leen di yëkkati seen kaddu wala ngeen koy nooyal ba keneen koo xam ne kii daf leen di bëgg xemmeem di ca nekk mu ne loolu bu leen ko def ndax loolu ci jigéen dafay nekk loo xam ne daf koy dugal ci loo xam ne du lu mu bëgg duumi alal xumuuli wa tasatturi wal taxfidi sawtaki dëhran tushkari mu ne ko pend laa tansuri ma dumti xayatan ila gayri allazi taxliluhu xajun jala laa tansuri bul xool mukk laa tansuri bul xool maa dumti xayatan li feeg yaa ngi dund li feeg yaa ngi dund bul xool kon nag mooy sa ngirum dund bul xool sa ngirum dund bul xool ilaa xayri lazi lu dul jëm ci loo xam ne taxliiluhu daganug loolee xadin jala leer na bul xool loo xam ne dagan nga leeru la lépp loo nar a teg sa bët bii di ko xool na nga dem ba mu leer la ne xool gi dagan na laa tanzuri maa dumti xayatan ila gayri allazi taxliluhu xajin jala loo xam ne dinaan sikk sakkanaan leer leer na dagan gi ak dagan gi léerut mu ne mu ne ko loola kenn xólloowu ko yow mi nga xam ne yow laay dénk ndénkaan lii yow Penda Diop ak bépp taalibe bi boo xam ne bëgg naa roy ci nii nga xam ne ni nga mel bëgg a dégg sama ndigal man mi nga xam ne maay digle moo tax wasaaya sëriñ bi tabarakallahu bari na lool mu koy dénk bokk yi dénk julit yeeg ñëpp kenn ku ci nekk mu yëkkati ay ndénkaane mu ne ko lii maa la ko dénk yow Penda Diop na nga ci bàyyi xel wajitani bil xiibata wa takabbura wa asbiti sukuuta wa tasabbura mu ne ko wajitani bii na nga moytu al xiibata jëw penda mu ne ah mu ne ko del moytu jëw bul def foo xam ne fala sa mbokk nekk wala nekku fa nga yëkkati ay kàddu teg ci moom te moom fekk na nekku fa wajitani bil xiibata jëw loo ci mën na nga ko moytu ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam lan mooy jëw mu ne jëw mooy nga tudd sa mbokkum julit ci loo xam ne bëgg ko ñu ne ko waaw bu fekkee li nga koy tudd loolu mi ngi ci moom nag mu ne waaw loola mooy jëw ndax su fekkee la ngay tudd ci moom nekkul ci moom da nga koo sosal mu ne watte kabburaa na nga moytu rëy jigéen du rëy rëy jigéen ju munta sëy rek rëya la tee mën a sëy jigéen ju munta sëy rëya la tee mën a sëy moo tax ñu daan aaye jigéen ju ëppale borom këram ñaare rëy da koy yomb ndax loo wax rek mu ne maa la defal nangam wala su dugg na ko nag man nangam almann daal di tàmbalee dugg te def def lu mu rëy rëy rëy bu ca almann duggee loole da koy yàq ne ko penda kon na nga moytu jëw te gis ngeen mbokk yi jëw ni mu neexe ci jigéen ñi jëw ni ko jigéen ñi bëggee guddeeg bëccëg ña nga ca bu ñu nekk ca yoonu marché wa ña nga ca bu ñu nekkee ca tabarkalla walukaay ba ca ñay wal ña nga ca bu ñu nekkee ca robinet ba di root ña nga ca léeg-léeg sax ñu nekk ci télé di ko seetaan ba noppi ne ci jëw léeg-léeg ñu nekk ci biir super yeeg sotaraag yeeg taxi yeeg yu demee ni ko yooyu tàmbali kenn ku ne dégg seen jëw ga te jëw déglu ga bàkkaar la def ga bàkkaar la mu ne ko yow pend yow mi nga xam ne yaa ngi ma may sa napp ma lay dénk wajitani bi na nga moytu alxibata jëw watta kabbura na nga moytu réeréelu na nga oyof tooy ndax mbaxana li ko bàyyi ci bopp mooy oyof dal li tax ñu koy war mooy dafa nangu kon nag na nga moytandiku jëw wa takabbura nu may def mu ne ko wa asbiti sukuuta na nga saxoo muñ wa tasabbura ak teey na nga saxoo muñ te na nga teey jigéen day muñ jigéen day noppi kon jigéen day teey na nga saxoo tee noppi te na nga saxoo teey ñaar yooyu benn bu ci nekk jigéen ju ne war na ko melawoo rawatina jigéen joo xam ne ji da ngaa nekk ci ab sëy tend wajitani bil kaziba wal riyaa wal ujba wal sumata wal bagdaa mu ne ko yeneen juróomi jikko ngi nii yu ma lay tere wajitani bii ne nga moytu al kaziba fen lépp lu sa yoon nekkul bul ca dugg bul wax lu nekkul dëgg bul toxal ay waxit fenn fu ne nga jëmee ko fa fenn mu ne ah mu ne ko nii journaux yi di def bët bu set titre yi rëy rëy rëy lool titre bu ne nga di ko xool boo koo gis ne ko ndax liir nga titre sàngam benn mu ne amu na ko bul bokk ci nit ñooñu mukk war yaa ànd benn mu ne amu na ko na nga moytu njistal njistal mooy def te yàlla tabaraka wa taala taxut lépp looy def ne yàlla tax te na nga ko def ci ak sellal te na nga ko ci royo ci yonent bi alayhi salaatu salaam alquran nee na fa man kaana yarju liqaa rabbihi fal yaamal amalan saaliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada wala ujba fenn na nga moytandiku aaw aaw mooy naw sa jëf lépp loo jëf rek naw ko di ko bakkoo di wane ne maa def nangam fenn mu ne mu ne ko loolu moom yow bul bokk ci jigéen ñi def loolu bul di naw sa jëf mukk wa sumaata fenn mu ne mu ne ko moytul yëddu moytul yëddu bul nekk ci kër sa moroom nekk fa ñuy wax ak moom nga bëgg la ñuy wax ak moom du lu umb mu ne mu ne ko pend yow bul bokk ci ñooñu yow na nga nekk jigéen joo xam ne ji li sa borom kër di wax ak yow na yem ci sa nopp waaye la muy wax ak keneen bu ci sa yoon nekk na nga nekk ba sa wàll ñëw wal baax daa mbañante bul na ci kër di bañanteeg say wujj bul na ci kër di bañanteeg say wujj peccor ba bul na ci kër di bañanteeg ñenn ndax nit dinay bañ di bañante ba far jural boppam ay noon te noon yooye fekk yàlla tegu ko ko nit benn noon rek la am te moo di cheytaane benn maa ngi lay dégg loolu wa asbiti sidqa benn saxalal dëgg benn saxalal dëgg ak dëgg na nga dëggu ci sa jëflante na nga dëggu ci say wax maal ixlaas yi te sellal lépp looy def na yàlla rek rek rek tax bul def lenn ngir nit ñi bul gis nit ñi def tax nga jóg di def ba bu nit ñi bàyyi woon nga bàyyi lépp looy def na yàlla tax bu ñëpp bàyyi woon jëf-jëf yow na nga ci wéyal di ko jëf lépp looy jëfit na nga yemale nit ñu ne la waaw góor ak ñu ne la defu fi dara ñaar yooyu boo ko yemalee rek mu ne a mu ne ko yaa nga ci dëgg wan nusxa fenn mu ne a mu ne ko saxool di laahi biiru say mbokk mbokkum jigéen moo gis na musóoroo du noonu nee ko du nii mbokkum jigéen moo gis lam war doo yaraax nee ko na dañ mbokkum jigéen moo gis lam war doo gàtt nee ko na dañ mbokkum jigéen moo gis mu yokk boppam nee ko na dañ mbokkum jigéen moo gis lu mu xewle dem ca salon ya toog ñu koy létt di ko firee ka def yëf mu ne amu ne ko nee ko na dañ dee ko def ñëpp rawatina say doom yi nga xam ne yaa leen jur pend loolu maa ngi la koy dénk soo defee yii tasfari bil ixtisaas da nga am lu la yàlla jagleel loo xam ne da nga am doom yoo xam ne dana tekki da nga am doom yoo xam ne bu ñu dee wax léeg-léeg ñu ne nañ leen xaar ba ñëw dinañ nekk ñoo xam ne ñu tekki la ñuy doon fi dunia dinañu tekk fil alaxira fil axirati te doom joo xam ne tekki na ci àdduna tekki alaxira yaayam dina am ndam ci àdduna am ci alaxira te ndamal nit alaxira tabarkàlla koo seen muy waaxu moom la wuti fenn wala tarumi taatallahi bila taati zawjiki taqiyi zil ula wala tarumi bul sakk mukk taatallahi topp yàlla bila taati zawjiki ci lu topp sa jëkkër bul defee ne mën nga am muus ba topp yàlla mu gërëm la ngay mooy sa jëkkër mu ne ah mu ne ko boo ko jéemee du sat topp sa jëkkër mu ne ah mu ne moom nga jiital topp sa topp sa yàlla topp yàlla wala tarumi bul bul sakk mukk taatallahi bila taati zawji sa jëkkër nag mu ne ah mu ne ko attaqi jëkkër ju ragal yàlla laay wax waxuma jëkkër joo xam ne ji ragalut yàlla waxuma jëkkër joo xam ne dafa ñeme yàlla dafay wax jëkkër joo xam ne li tax nga koy topp mooy moom dafa ragal yàlla ci santaane yàlla lay xëy ci santaane yàlla lay gont amaa jëkkër joo xam ne ragalul yàlla du bàyyi yàlla xel yoonam ne ko ci yooyu mu ne ah mu ne ko waxuma jëkkër joo ji ba ñuy wax ne ku am sa ngërëmu jëkkër am ngërëmu yàlla ku sa jëkkër gërëm nga dem aljanna mu ne ah mu ne ko si taqi yi mooy jëkkër joo xam ne dafa am ak ragal yàlla wala zil tuqaa zil ula yàlla mi nga xam ne boroomu kawe la kon tend bul yaakaar ne mën ngaa mooy sa jëkkër topp yàlla mu nangu soo bëggee topp yàlla mu nangu mu ne ah mu ne ko toppal sa jëkkër wal taalami ann jihaada niswa fi taati l azwaaji duna mila wal taalami xamal xam ngu leer ten ne jihaadu jigéen jigéen ju jihaad war a gàddu ngànnaay wala mu war a gàddu fegal wala mu war a dir war a taxawal laa ilaha illa allah bëgg a taxawal muhammad rasulullah bëgg a jëriñ daawa bi mu ne mu ne ko li ma li ma lay xamal mooy na nga xam ne loolu lépp ma ngi koy amee fii taatil azwaaj yi ci topp jëkkër topp ngay topp jëkkër mooy tax ngeen am ca doom ju baax doom ju baax da nga cay amee yar ko yar bu baax topp sa jëkkër yar boobu nga koy yar bu yar bu baax nag ak ànd boobu ngeen di ànd ci topp gu nga koy topp mooy tax doom ja tekki te xale yëpp bu ñu tekki woon suñu màggee ñu am mag ñu tekki ci réew moo xam ne mag ña dañoo tekki xale ya tekki réew ma doo ca dégg mukk ñol-ñol ñoom ñëpp tabarkàlla dañuy dund ci ak neex dañuy dund ci ak nooy lépp yomb tabarkàlla lépp yaatu xéewal yi naat taw yi bari lenn lu ci nekk am loolu nag foo ko mën a jigéen mën a amee mooy mu topp jëkkëram doon a mbir ya lii ma lay wax nag mu ne mu ne ko amul benn weren ku bëgg lii mu ne mu ne ko da ngay topp sa jëkkër amaa su fekkee ne da nga am jëkkër am patron patron bi moom moom nga gën a respecté sa jëkkër ndax lan parce que patron bi bu weer dee mu yëkkati enveloppe jox la enveloppe boobee nga jàpp ne dafay defar lépp say bëgg-bëgg ba tax soo xëy seeg bu la patron wooyee nga ne ko way monsieur daal di fab say loxo teg sa ginnaaw bokk ko defal lii nga def heure sangam ngay wàcc nga wàcc andil nangam nga indi boo ñëwee ci kër gi nag sa jëkkër bu laa indi ma añ nga ne demal ci waañ wa wala damaa sonn wala damaa sóonu wala dañoo bokkoon xëy maag yow ba noppi bëgg ngërëmu yàlla mu ne ko ah pend lii mënta ak mukk bul yaakaar ne sa patron moo gën sa jëkkër ci yow bul yaakaar ne sa patron moo ëpp sañ-sañ ci yow fenn xam nga lu ma la yëgal wa haytuma zawjun radiya an zawjati radiya anha rabbuha bi ni'mati saa bu yàlla bégee ci yow daal daa fekk sa jëkkër bég ci yow saa bu yàlla bégee ci yow daa fekk sa jëkkër bég ci yow ku sa jëkkër bégul ci yow pend mu ne am mu ne ko yàlla du bég ci yow bala ngaa am mbégteel yàlla da ngay am mbégteel sa jëkkër mbokk yi kon képp koo xam ne ki da ngay sëy bëgg di jaamu yàlla léeg-léeg nga bàyyi fi sa jëkkër dem màkk ñetti yoon bàyyi ko fi dem màkk ñeenti yoon bàyyi ko fi dem màkk juróomi yoon ñëw di tudd ajaak ñoom seen yooyu bàyyi ko fi moom mu tudd moor ba léegi demagul màkk loola mi ngi mel ni kon yow lii ngay def ngërëmul sa jëkkër yaa nga bëgg ngërëmul yàlla tax ngay dañ dañuy dem ak ñëw ndekete kii boo amul ngërëmam boo demee ba ci yàlla boo ne ko labbayka mu ne la laa labbayka wala saadayka wooxuma la fi demal ca kookee nga bàyyi ci adduna ca ca ca dëkk ba nga wax ak moom ba mu gërëm la nga door ñëw fii waaye ma ne am na ñoo xam ne bu ñu jógee fii sax seen jëkkër du ci bépp léeg-léeg nga gis ko wax ne kii jëkkëram a nga hôpital tëdd mu dem màkk bàyyi ko fi léeg-léeg mu faatu ginnaawam léeg-léeg nga dégg ku nekk màkk di tawaaf ak yooyu ñu téléphoné ko ne ko sa jëkkër faatu la mu nekk fii yow nga nekk foofay def lool bi nga fii jóge kon yóbbu woo ngërëmam kon nag wa xaytu ma zawjun radi an zawjati radiya anha rabbuha bi nicmati tabarkalla benn ama ida lam yarda anha abada fa laysa yarda allahu anha sarmada mu ne waaye su fekkee ne jëkkër ji bégul ci moom yàlla du bég ci moom mukk bépp jigéen boo xam ne su jëkkër bégul ci yow yàlla du bég ci yow mukk waaye nag jëkkër ja muy wax ba tey ma delluwaat ci mooy jëkkër ju ragal yàlla bu leen defee ne jëkkër joo xam ne lu ko neex def nu ko neex mel kooku ngërëmam mayewul ngërëmu yàlla ngërëmu jëkkër ju tekkiwul dara mayewul ngërëmu yàlla maye jëkkër ju ragalul yàlla maanaam ngërëmam mayewul ngërëmu yàlla ngërëmul yàlla fañ koy amee mooy jëkkër joo xam ne dafa ragal yàlla subhanahu wa taala benn mu ne amu ne ko wal taalami bi anna kulla ma sadar li xayri wajhi zil jalali fa hadar maa ngi lay yëgal ne lépp loo xam ne génne nga ko ci jëf jëf nga ko te yàlla tabaraka wa taala taxut loola fa hëdër ab poussière lay doon fa hëdër day mabb lépp loo jëf te yàlla tabaraka wa taala taxut fenn mu ne am na ko fa hëdër moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci hadiis ba yawmal xiyaamati ñett la yàlla njëkk a àtte borom xam-xam bu bari xam-xam suñu borom tabaraka wa taala woo ko mu ñëw mu ne ko lu ma la defal mu ne ko xam-xam bari nga ma may loo ma defal waa ji ne ko man day ma ran waaraate yëkkati sama kaddu pour sa kaddu yëkkatiku yàlla tabaraka taala ne waa ji li nga wax du dëgg daal ne malaaka yi kii bu daan jëf bu daan wax daf daan wax ndax ñu ne kii moo bari xam-xam waxoon nañ ko ci àdduna loolu moo nekk ak payam ndax loolaa doxoon muy jëf fii du fi am illa naar loolu ci sawara daal ne malaaka yi sànni leen ko ci biir sawara ñu sànni ko ca aazana allahu min an naar yàlla yàlla mosul ci sawara keneen bu di la dee misaal lan ni muy nasabe moo di walantanaa li diina xatta tasturi jismaki yaa zeynabu bi taxamuri walantanaa lii doo am mukk ak diina diina doo am diina mukk lu dul dangaa denc saw yaram bayit bii bu ngeen seetloo kaset bii weesu ñëwoon na ci bu ngeen am mukk diine yéen jigéen ñi doo am diine ba faw xatta tasturi lu dul dangaa denc jismaki saw yaram jigéen li feeg dencul aw yaram maam borom Tuubaa nee na amul diine diine soo ko bëggee am kon muy al islam ci jigéen da ngay dañ saw yaram da ngay muuru ba saw yaram daj ba mu des xar kanam bi ak tenq li bayit bii gis ngeen ko nii mi ngi nii ku ci am saaratul tulaab boo ca demee daa ko ca fekk ci bunt ba ñuy jàngalee nas ci bunt ba ñuy jàngalee nasbul fi'lil mudaari walan tanaali diina xatta tasturi yi jismaki yaa zeynabu bi taxammuri yonent bi sallallahu alami annahu la yanju ahadun min azabillah xata yatruka arbaata asiya penda kenn du mucc ci mbugulum yàlla lu dul da nga bàyyi ñeent ku bàyyiwul ñeent doo mucc ci mbugulum yàlla penda daan ne ko yooyu ñeent yan la maanaam mel ni ku defarwaat mayaat ko noppam ndax mbugulum yàlla suñu la robee ci biir annahu la yanju ahadun min azabillah xata yatruka arbaata asiya penda kenn du mucc ci mbugulum yàlla lu dul da nga bàyyi ñeent ku bàyyiwul ñeent doo mucc ci mbugulum yàlla penda daan ne ko yooyu ñeent yan la maanaam mel ni ku defarwaat mayaat ko noppam ndax mbugulum yàlla suñu la robee ci biir xabru say mbokk ñibbi bu ñu lay mbugal mbugulum yàlla kenn du ko yëg bu ñuy togg ay ceeb di lekk ñu lay mbugal ñoom duñ ko yëg su ñuy def ay mburu di lekk yow ñu lay mbugal kenn du ko yëg luñ la lu ñu mën di nekke ñoom te it léegi sii ci raw jigéen ñi di toilettu di waaxu yi dem ak a ñëw yow nga ne ci mbugal mu ne ko penda su fekkee ba ngaa mucc ci mbugal moomu kaay ma wax la nga bàyyi ñeent mu ne ah mu ne ko alkasiba bàyyil fen wal kibra bàyyil rëy wal buxla bàyyil nay su azanni bàyyil ñaaw njort ñeent yi soo leen bàyyee da nga nekk koo xam ne kii da nga mucc ci mbugalum suñu borom tabaraka wa taala fen rëy nay ñaaw njort ñeenti jikko yi ku ne war na ko bàyyi penn mu ne ah mu ne ko rawatina jigéen ju ne jub sëy jigéen ju ne jub sëy moom ñeenti yi moo ko war a gën a bàyyi ñëpp ndax su dee fen sëy ba yàqu su dee rëy sëy ba yàqu su nayee ba nga xam ne gan gu jëkkëram am buy yàq di leen xool su nayee ba nga xam ne kopp-koppal kenn du rek ci kër gi soo zanni ak ñaaw njort lu jëkkëram def mu ne maa tax lu jëkkëram yëkkati mu ne fii la jëm yooye mu ne ah mu ne ko day yàq li nga xam ne moo di ab sëy kon penda penda Diop mii yàlla na yàlla yërëm ko te yërëm ñu lii ko membre am Tuubaa dénk rajala anhu di ko dénk dénkaane yu rëy yii muy wax ko ne ko na muñ wax ko ne ko na ragal yàlla na muñ na ragal yàlla wax ko ne ko nay tuub wax ko ne ko nay kër kër yi fu mu toll ndax kër kër yi mooy tax mu mën a tuub wax ko ne ko bul sol saw dàll di jëm ci lu yàlla gërëmut mukk yow pend wax ko ne ko na nga sax ci sedd wala li ñu tuddee géey foo mën di toll yow pend wax ko ne ko saw yaram dee ko suturaal del sàng saw yaram loo man del toog ca kër ga loo man wala tabarraj na tabarujal jaahiliya alxuraan a ko wax wax ko ne ko pend foo toll del suufeel sa kaddu foo toll del suufeel sa kaddu bul ree góor ñëpp yi dégg bul xaqtaay góor ñëpp yi dégg bul wax ca kaw foo toll góor ñëpp yi dégg waxuma laa nag ay taasoog ay feccak ci turu way musique ak yu demee ne ko yooyu pend bul bokk ci ñi nga xam ne fun ji góor ñu toll di bànneexoo seeni baat pend yow bul bokk ci jigéen ñooñu bu jigéen ñëpp maasi woon di ko defit mu ne ah mu ne ko yowam bul ci bokk pend xool lu xaraam bul ko ci def lépp loo dégg ñu naan xaraam naag xaraamul ci xool ga mu ne ah mu ne ko bul ci bokk bul ci xool lu xaraam saa boo taalee sa télé pend gis ca lu xaraam mu ne ah mu ne ko fay ko waxuma laa nag ngay wuti kaset boo xam ne bi da nga koy teg muy lu xaraam pend yooyu yow bu ci bokk dégg nga pend mu ne ah mu ne ko moytul jëw moytul jëw jëw mooy wax sa mbokkum julit loo xam ne ba nga koy wax neexu ko te nekku fa Aïcha radiyallahu anha ñu ngi nettali nee nañu daa toog benn bis benn waay génn ci misaal rek mu daane ah kii di fi ko passé